rafetlu ànd bi ak seen télévision Kaolack TV mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru gaaw yi tombek fukki fan ak juróom-ñeent ci po août atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñett mu bokk nag ci ponk yi ci gën a fës ñii di ay soxna yu Ousmane Sonko ñoom ñooñee nag amaana bëriwuñ sax liñ leen di gis mbala luñ leen di déggal lu ni mel rek ni ci biir yédee mbir loole nag waral ñoom ñooñee génn sonn rek di ñaan ñi nga xam ne ñooy nguur gi ñu daal di rek yëkkati Ousmane Sonko daal di leen rek jox ko leen ngir ñu mën rek andi ay saafara ay paj jëmale ko ci seenub jëkkër seeni bëgg-bëgg nag jëmale ci eh, moom moomee di Ousmane Sonko bari na loolee nag des nañ ci gën a xóotal ci biir yile xibaar ba tey rek ñu àddu eh, dem fële ca diwaan bu Diourbel ab hôpital sax barabu fajukaay boobee bokk na ci eh, ministre bi ñu dénk wàllum paj gi ci ñekk ñi nga xam ne yaakaar nañ leen ngir bépp rek ay jafe-jafe mbala ay tawat bu amee ñu mën a fa yóbbu ñi nga xam ne ñoom ñooy pèlerin yi lu ni mel nag moo waral ñu amal ay seet seetal ak rek gën a mën bi lépp bërëbu fajukaay àddu rek jëm leneen ci biir yile xibaar dañuy daal di dem rek ba fële ca ndar géej ca gendar ndaw ña fa nekk nag di napp ñi ci ëpp rek di dugg ci gaal gi teewut nag ñi nga xam ne ñooy seen waajur yi rek bañ daal di rek di ñaan ngir ñu andi leen ay saafara ak it xool rek nu ñuy def ba ndaw ñi mën a toog fii ci bërëbu senegal liggéey fii am fii tekki fii ba rek dootuñu namati dem fenn ci bitim réew gannaaw luy des nañ ci euh, daal di toftal rek xibaaru euh, tàggat yaram yi faram-fàcce bi léegi léegi lay doon. addu rek ba tey jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy soxna bu Ousmane Sonko di wuyoo ci tu Anne Diamaka donte nag ba arrestation bi amee ba léegi mosuñu dégg nag mu addu jëmale ci mbir mu ni ni ki dimb rek daal dina amal ay leeral jëmale ko ci li nga xam ne moom mooy arrestation bi amoon na loolee nag jur naxar ak tiis ci xolam daal dina ci dellusiwaat ñu teewlu ko. li indi hôpital bi defe naa arrestation bi la donc dañuy jiitoo ci arrestation bi. dama yuuxu ndax naqar. des fois nga def ben acte ñu ne la waroo ko def yow lañuy ñuy tudd yow lañuy yobbu yow lañuy ki kii nak xol-xol la et amna na loo nek il faut mu génn si je dis que je suis témoin dama xey le matin c'était un vendredi mu tombeek jour férié ma dem bureau paré dili sama yaay yobbu ko ci ben xaritam bu feebar bi may ñew ñi ngi pare euh, julli daanaka ci jumaa ji ma yegg si ba ci rond point boulangerie jaune bi ci BRT bi ma gis oto yi ma gis na force de l'ordre ñuy dugg ci BRT bi ci biir suma fit ne rëf ma ne lu xew ba bi may jàdd ci koñ bi maa ngi yëndu di xool naan est-ce que barricade waatuñu parce que la barricade bi dafa dimension boo je très lourd bi ñu suis bi may dama garé, Ousmane Je gis si di wax ba yëkkati ni loxo bi ma gis ko mu wax ba yëkkati je bi ma wàcc ci me bi bi ma rek dama ci Ousmane je ana suis Ousmane lan la ne filmer mais c'est bon c'est réglé mu amoon beneen waay bu nekk ci ginnaaw Ousmane bu soloon yére bu rouge bëggoon jot ci Ousmane pour jël téléphone bi donc garde yi di ko ko empêché ma mer man bi may wax xawma sakkan laa waxal bi may wax xam naa ne daal lu gaa teint noir lu rouge la sol ma ne ko sëñ bi ma ne ko xanaa amoo leen ay frère pourquoi cet acharnement sur sur cette personne gannaaw jàpp ganu ko jàpp moom Ousmane Sonko daal dina rek amal ab grève de la faim loolee nag jur rek lii di wérgu yaramam daal di taggatémbe ba ñu yóbbu ko ci réanimation jamono ji nag ñi di ay soxnaam ñaari fan képp lañ leen may ci semaine bi ngir ñu koy gis loolee moo waral ki nga xam ne mooy ñaareelu Ousmane Sonko di wéy ci turu Anna Diamaka di rek sàkku ngir ñu daal di ko jox jëkkëram waa këram ak famem daal di ko fàcc nu mu gën a gaawee ñu teewlu ko. mais trop c'est trop aussi ñu jël rek teg lépp si loxo yàlla te xam ne xel ni incha allah population sénégalaise xam nañ li ñuy dund kon nañ autorités yi aussi nañ xam ne xel ni ñoom dañoo yar njaboot ku teg njabootu jaabur loo xamante ni métti na toogal nga toog nga réfléchir nga ni lii ndax suñ ma ko tegoon sama njaboot dinaa ko mën a supporter parce que defe naa kenn ku nekk da ngay jël sa bopp di ko miiré ci sa morom bu ko defee boo koy teg rek di gëm naa doo ko teg loo xamante ni moom du ko mën a bañ a àttan dem nañ Ousmane donc euh, niñ ko gissé neexul honnêtement très honnêtement neexul les gens nous connaissent très forte muy man muy mom bu problème amé nit bu ñëwé ci kër gi daf ñuy naan yéen di amolén, ndoxu bët do len joy mais cette fois-ci le problème nous a secoué Ouais. ça nous a secoué bu deug rek ngeen bëgg dégg métti na et ça nous a vraiment touché la situation elle est alarmante Té buñ ci jogul dinañu ëpp loxo le message qu'on lance nañ ñu ko delloo ci ñun ñu fajj ko ñun on préfère sax nañ ñu indil ñëpp ci buntu kër gi nañu indil l'armée nañu indil les forces de l'ordre GIGN genre nañu indil ñëpp nañ ñu ko tégal. mais nañ ñu delloo si Ousmane ci suñu loxo ñun ñu fajj ko Mo dal suñu xel parce que Ousmane nek réanimation ñun njabootam amuñu droit gis ko lu mardi ak vendredi on est intégralité yu kàddu yi euh, ñi di soxna yi Ousmane Sonko di Siresi Sy daal dina ci andi ay leeral jàpp rek joxoñ baram bi nga xam ne joxoñ nañ ko baaraam ak appel yi nga xam ne lancé nañ ko rek jubluwaay bi jëmul ci lu ñett ci ay mbir ñu ñett yan la. lu am dafa am parce que dans l' espace public tout comme dans l' médiatique. ñaari soxnay Ousmane Sonko la parole était rare pour ne pas dire inexistante. inexistante oui. tay c'est la première fois. Mm-hmm. ñu guen wax. pour man ma japp ni wax bi adressé nañu ñetti cible mm-hmm. dafa des nag dañ leen déggam du leen dégg. pour man benn bi d'abord moy opinion nationale Sénégal. Mm-hmm. mo xam ñi dëkk fi wala ñi nekk ci biti ñoñu l'indigène leen di peut-être mooy état de santé Ousmane ak nous trouver une solution heureuse boobu vous yi à nañ ci et liñ ci wax euh, la situation est très inquiétante mm-hmm. hein, même si elle n'est pas encore désespérée mais liñ fi jot a wax nii xel mm-hmm. deuxième cible bi ci seen communication wax le président Macky Sall. Mm-hmm. xaw ma negam président Macky Sall dina ko léegi déggam déet troisièmement bi waxtaan nañ ak Mariam fay Sall. parce que ñoom ay daam nañu. Mm-hmm. ni Mariam Faye Sall nekkee daam. mu ngi noonu waxtaan wi jublu ci ñetti doomi aadama yooyu nañu yónni yàgg rek xool ndax dinañ dégg waxtaan wi ñu leen a wax am déet ñu daal di ne coow rek dem ca diwaan bu Diourbel ab l'hôpital boo xam ne jëwriñ yaram fi ci diwaan bu Sénégal daal dina ko ciblé boole ko ci l'hôpital yi nga ku sa yaram tagatémbe rek jëm ci diwaan jëm ci wàccaayu màggal gi ak yu ni mel des nañu la xaarandi foofee waral nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fay rek ànd ko ak waa UCG def ab set seetal gën a rek bu fajukaay boobee ñu teewlu waxtaan bi nga xam ne sax ak ña fa nekk wàccaay màggal ministère de la santé dafa jàpp ne hôpital Diourbel dafa bokk ci dispositif bi wara a gérer màggal bi en terme sanitaire donc bu ko defee day aajowoo balaa ñu egg ci màggal ba donc suñu équipe yëpp pare pour pour mun a pour mun a gàttandu en tout cas gan yi ba bu ku ci am problème te eggoo Touba ñu mun la teertu fii magal bi ci biir juróom fan yooyu lu ci ëpp ci li ñuy toppatoo mooy ay pèlerin mooy ñu doon dem Touba am tolof tof ci diggante bi ak wàll ak ak ak ak ak ñu xeetoog ñu xeetoog ñooñu donc bu ko defee dañuy am ay commission commission yoo xam te ni ñii ñooy toppatoo lekk bi ci juróom fan yi ñii ñooy toppatoo paj mi ci juróom fan yi donc ñooñu commission yëpp ñu ngi taxaw di liggéey liggéey bi. ak maladie moom lu lu ñu war la te duñ ci jóg parce que ñaareel problème yu ñu am ak maladie yëpp du problème paj mi. mais problème mu seen nekkit ak personnel ba lañ lay wax donc bu ko defee yow li nga ci mën mooy foo toll rek di la ma personnel ni li leen tax seen gannaaw Diourbel dañuy dem fële ca diwaan bu ndar ca gendar moom ndaw ña nga xam ne rek ñoom ñooy ay nappkat ñi ci ëpp nag miin géej googee day waral rek ak njaaxare ñoom nag loolu bi la njaaxare moom mooy tax rek li ci ëpp ñuy dugg ci gaal gi parent ya fa nekk nag rafetlu wuñ lu nu mel di ñaan rek ñu joxool nu ñu def ba dimbale seeni ndaw ñu daal di am liggéey fii ci dëkk bi ñu teewlu lañu fa jàmm phénomène la woon bu xewoon amuñ si woon conscience danger bi si nekk comme doomu mool na yàlla dem Europe la rek ñun ñëpp nu jël risque dem mais bi demee ba àgg xam nañ conséquence mais ñuy imaginer fii ak ñu ni gars yi message yu gars yi di lancé si jamono boobu bopp nga xam te ne na comme tey ak réalité bu fa am wuute na quoi daa boo demee yow impact boobu moo la jëkk euh, problème boobu moo lay jëkk impacté ba nga xam ni ñaa imagination bi nga am ak réalité bi fii dara bokk si boo ñëwee ci dëkk boo xam bokk leen langage euh, culture yi bokkul réalité yi bokkul bon amul yenn capacité day xaw difficile pour nga adopté wu quoi mais tey bi ñu demee ba foofu li may nekk nekk doomu mool masuma bay masuma jaay ambulant bi ma demee foofu réalité bi moom may obligé ma dugg si marché ambulant bi dugg si liggéeyu tool yi ak yeneen métiers yoo xam ne def maneebar daal fii ni ñuy wooyee maneebar euh, lom dus nekk loo gis nga xam yaakaar ni boo ko defee rek man maintenir sa situation économique di nga ko def moo tax tam bi ma ñëwee li ma jëkkat créé mooy wut benn chambre auto auto frigorifique di yëpp di jënd si gaal yi fii di yóbbu Dakar di jaay ak Kaolack ak Touba comme mareyeur mais sama sama objectif nekkul ma réer bi sama objectif mooy dem créer euh, société boo xamante ni dama bëgg dem ba man stock ay jën di ko jaay si biir dëkk bi doomu moo li di ko jàpp ma koy stocké bu ñu ko soxlawaatee ma jaay leen ah amul benn mag mu si d'accord wala borom kër waaye nag loo xam ne dal na sa kaw te ñi kaa def dañu koy nëbbu. bari na xale yoo dem seen ay yaay ay complice lañu xam nañu la xew yow borom kër gi yow yaay innocent boo duggee duñ la wax la xew dan laa xool nga génn. dañ laa xool ngaa dugg waaye yow yow affaire bi réer na ndaxamul benn borom kër koo xam ne daay yëg ni sa doom ma ngaa dem nga ànd sax moom. benn xalaat masul xalaat ni mool dana sax jël avion di dem bitim réew. di jël gaal di dem bitim réew mbir mi foog ngeen jàngat kana ku ne xam ne ni dëkk bii dëkku liggéey la noor nga daan liggéey bu newetee doo gis lu ma fukki nit mu jaay doo ko gis waaye léegi noor ku ah, amul dund noor nan nga amee dund newet noo am dund newet. lii moo waral gis nga tey tefes gi tefes goo daan wàññi ay junne junne junne junne nit tey mënoo fi wàññi téeméeri nit lii lu metti la. si na ñëw ci ñaareelu xaaju xibaar yi ñu jagleel ko nag bile yoon euh, xibaaru euh, tàggat yaram yi ñu jagleel bile xibaaru tàggat yaram équipe bi nga xam ni moom moo représenté rek li nga xam ni moom mooy Kaolack ca phase nationale ya ñu teewlu ko xibaaru tàggat yaram yi dañ koy daal di jagleel rek li nga xam ni moom mooy phase nationale bi rawatina nag équipe bi teewal li di Kaolack foofee ci biir yi la phase nationale di wuyoo ci turu ASC Daxaar gi laata ñuy dem nag coow ya ca amoon jafe-jafe yi ñàkkum koppar gi ba rek ñuy génn di woo ñi di autorité yi ngir ñu andi ndimbal ñëmale ko ci ñoom loolee nag teewul ñu daal di rek yegg foofee ci phase nationale yi daal di fa nag tàmbali di def ay résultats yu am solo lu ni mel nag moo waral ci match bu njëkk mu doon jàkkaarloo ko ab équipe bu équipe bu diis lool te it am doole teewul rek ñi di daxaar gi daal di am ndam ci kaw bi le équipe loole rek jural yoo xam ne rek moom la tijjee yi les phase nationale ci ñaareelu matcham rek ab bu Diourbel la rek daal di am dafa it liggéey bu am solo coow li nag mbala boog amaana mbetteel gi nga xam ne rek daal di nañ ko jot a am ci biir yi les phase nationale dimbale ko ci ASC daxaar gi mooy ñetteelu matcham bi nga xam ne rek daal dina ko amal ak équipe bi di waa Koungheul bi équipe sax moom moo daal di dóor ASC yaakaar ci benn defet bi nga xam ne rek rek jamono ji daal na ko am ci biir yi de phase loolee nag teewut mu daal di rek qualifié ci li nga xam ne moom mooy huitième de finale ñu mën a jàpp ni rek jamono ji ASC Daxaar gi moom moo jël premier ci poulam ak juróom benni poñ ci li nga xam ne nag juróom ñeenti poñ rek mooy li nga xam ni moom mooy njubbantal ga kenn mënu ko romb ci biir marché de poule yi di dibéer gi ñaar fukki fan ci weeru août bi ni ñu jublu ci la ASC Daxaar gi rek war a jàkkaarloo ak Yago bu Matam lu nu mel nag dugg ci huitième de finale bu euh, tournoi phase nationale yi nga xam ne des nañu ko am amal lu ni mel mu ngi taxaw foofee ca stade Babacar Gaye la ñu koy amalee ca Kaffrine bu 16h jotee ñuy ñaan rek équipe bu Kaolack bi daal di rek am ndam bi le nekk rek loo xam ni victoire rek moom mooy li gën ci ASC Dakar gi ngir rek mu mën a continuer li nga xam ni moom mooy phase nationale yi ba yegg rek ci njubbantal ba daal di rek succédé ki nga xam ni moom mooy jamono bu Louga. jërë ngeen jëf yéen ñu toogoon di topp ak safoo Kaolack TV li lañ leen andiloon ci xibaar yi cant ngërëm ñeer na Babacar moom mi féetee ci wàllum cadrage eh, bi montage bi ak lu ni mel Baye Mor nag moo yor wàllum régie bi jàpp ci liggéey bi ba rek gis beeg dégg bi gën a mën a ngeen jëf di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah leen ak programme Kaolack TV.